أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ci suratul baqara di jël tey aaya 187 mu nekk benn aaya bu nu soro sunu borom subhanahu wa taala di jàngal juróom ñetti atte benn aaya alquran la waaye dinañ ci jàng ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala juróom ñetti atte ci attey diine yi atte bi ci njëkk mooy ibahatul akli wa shurbi wal jima fi layali siyam min gurubi shams ila tuluci lfajr daganal gu nga xam ne diine ji daganal na ko lekk ak naan ak sëy ci guddi weeru koor fi jant bi di sowee ba fajar gi di jot ndeke kon soo déggee lii di nga xam ne li ñu tere ci weeru koor mooy lekk ak naan ak sëy ci bëccëg amma guddi gi ñett yi ñu la tere woon dagan na ci yow ci guddi weeru koor ñaareel mooy bayaanu zarfu siyaami wa huwa min tuluci alfajri alsadiq ila gurubi shams ci atte yi ci leeral yi day leeral ne koor fan la tàmbalee ak fan la yem kon dinañ jàng ci atte yi ne mi ngi tàmbalee fi fajar gi fenkee ba jant bi sow foofu la koor yem koor mi ngi tàmbalee fi fajar gi fenkee ba jant bi sow ñetteel bayaanu ma yumsiku anhu saim wa huwa al aklu wa shurbu wal jima ki woor lan la dul def aaya yi dañu koy jàngal mooy aaya dañuy leeral ne ki woor lim dul def mooy day téyewu ki woor day terewu lekk naan ak sëy ñeenteel masruiyatu yoonal nañ al itikaaf te mooy folleeku lépp beru ja ca jàkka ya ngir wéetal yàlla subhanahu wa taala wa xaasa fi ramadan nee na rawatina ci weeru koor wa anna al mutakifu laa yahillu lahu muxaalatatu imraatuhu wa huwa mutakifun xatta tantahi muddatu itikaafihi allati azama an yatikafiha nee na ki def itikaaf mooy génn këram du dagan ci moom mu jaxasoog soxnaam mu sëy ak soxnaam du ja du dagan ci yow nga jonjoog moom te yow yaa ngi def itikaaf lu dul itikaaf bi jeex guddi yëg bëccëg yi nag lu dul diir bi taamu itikaaf bi jeex su boobaa mun nga jonjoog soxna si waaye fekk yaa ngi def itikaaf amoo droit jaxasoo ak sa soxna juróomeel dañuy jële ci benn aaya bi ba tey mooy isticmaalu alkinaayatu badalan at tasrih fi ma yastahi min zikrihi haysu kanna bil mubashara anil wati léeg-léeg ci san ci ci waxtaanu diine wala ci mbiru islaam léeg-léeg doomu aadama bi mën naa bañ a tudd li muy wax mu junj rek comme sunu borom subhanahu wa taala am na ay mbir yu mu junj fii ci aaya bi jëlul yatam rek dóor ci digg mi mais dafa joxoñ loolu dina dagan léeg-léeg kii waxtaan waxtaanu lislaam mu joxoñ bañ a tudd mbir mi ba mu leer sunu borom fii joxoñ na sëy tudde ko jonjoo la wax bul jonjoog sa soxna te tuddul baat bi loolu dina dagan juróom-benneel mooy xurmatu araam na intihaaku xurmatu shari xët attey sharia wa taaddi hududullahi ak xëtt frontières yi diine ji santaane ne nangam bu ko kenn jéege bu ko kenn def doomu aadama war naa mën a terewu ba ñu xëtt frontière u yàlla bi subhanahu wa taala loolu ba tey dinañ ko jàng ci aaya yi di ñëw sunu kanam juróom-ñaareel li ñuy jàng ba tey ci atte yi mooy bayaanul gaaya min inzali sarai wa wadi lxudud wa hiya taqwa allahi azza wa jal banaanul gaaya min inzali sharai yàlla mu ngi leeral lan moo tax mu wàcce sharia alquran bi lu tax mu wàcc lu tax ñu ne ñu def leen lu tax ñu ne ñu bàyyi leen lan moo tax yàlla teg frontières yi mu ne lii fii bu leen fi jege yem leen fii lu tax lu tax yàlla wàcce sharia bi lu tax lu tax yàlla teg frontière yi lu tax benn mbir kese moo tax mooy at taqwa pour nit ñi ragal yàlla loolu kese la juróom-ñetteel ci atte yi ñuy jël ci aaya bi ba tey mooy sabata bi sunna sunnata suxuur sax na ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu nee sunna sunna mooy doxalinu yonent bi yonent bi lan la doon def ci mbir mi loolu mooy sunna léeg-léeg nga dégg ku ne man sunnit laa kon ça veut dire que yow ni yonent bi doon dundee ci ay wax ak mi jëfam loolu nga war a mel doone man sunnit laa rek di def loo neex aw sun sunna mooy doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la doon doxalee loolu mooy sunna mais sunna du lu ñuy wax kese mbalalalal mu daal di dem déedéet soo ne man sunnit laa rek amatoo droit def bidaa amatoo droit def kenn lu mu wax lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amatoo droit dunde neneen nu yonent bi dundeewul mu ne moo tax sax na ci sunna muy xëdd wa stihbaabi taaxirihi waaye sopp nañ ñu yéexe ko ki koy def xam nga ñun Sénégal bu ñu nee xëdd da ngay gis ko yow 3 heures du matin di xëdd fekk bu ñuy salaatu 5 heures kon da ngaa war a xëdd ba 6 heures ba 4 heures mooy 5 heures mooy quart nga def diggante xëdd bi ak salaatu 15 minutes nga arrêté. boo biddantee nag mën ngaa xëdd ba mooy cinq boo biddantee tamit ci diggante loolu mën ngaa xëdd diggante mooy cinq bi ba cinq heures boo biddantee tamit nga daw ba ba ngay naan ba naan rek des ci bu ci naan rek desee tamit nga dem ba teg pot bi ba ba mu naan salaatu xayru minan nawm yenent bi nee na boo biddanti woon waa ji di noddu asalaatu xayru min nawmi fekk teg nga dànk bi sa gémmiñ mu ne bul ko yàbbi lekk wan nga continuer sa koor kon dinañ jàng ci aaya yi di ñëw sunu kanam yoonal gu sunna yoonal xëdd da ngay gis fi jullit bu ne non man mënu ma xëdd non ma xëddee bon te bañ a xëdd gi yëpp du leen lu dul bëgg a nelaw kese bañ ko la yee rek non bu xëdduma am na ñoo xam ne li leen nelaw jaral bu leen ko alal jaraloon kon feesal nañ bu yàgg waaw loolu musiba naaru laay la nee na loolu yëpp nag maalam yu rasha tuluil fajir na nga fexe ba bul xëdd ci jant bi fenk waaye wastihbaabi taajilil fitri dañoo yoonal teel a dog yoonal yéex a xëdd ki woor dafa war a teel a dog kenn amul droit jant bi so nga yéexee sa ndogu yonent bi teel a dog daf ko yittiloon ba muy yéegloo saxaaba yi ci garabu tàndarma yi ñu koy séentul jant bi bu jant bi duggee rek mu daal di dog kon juróom-ñetti atte yi mbokk yi moom la ñuy jàng ci benn aaya bi ñu fas yéene jël ci kàttanu yàlla muy aaya 187 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سن برم سبحانه وتعالى موني جانغال تي آية بي لن موتخ آية بي واج سبب نزول الآيات آية بي لتخ مواج ban aaya mu ne uxilla lakum laylata siyaami rafas ila nisaikum aaya bi lu tax mu wàcc mu ne anna omar abnul xataab jële nañ ci omar yal na ko yàlla gërëm mu ne baadama naama mu ne omar nettali na ne moom day ci bëccëgu weeru koor woor nañ ba ngoon guddi jot mu dellu këram bi mu demee ba ñu ndogoo ba pare soxnaam daal di defaru sangu toiletu xeeñu mënatul téye boppam mu séeg soxna si ah mu xëy dem ci yonent bi wa saka ilayhima xadasa lahu mu wax yonent bi ah def naa musiba de yonent ne ko ban musiba nga def ko sëy naag sama soxna te ci weeru koor lañ nekk beneen waaye ne ah ak manit de keneen ne ak manit de keneen ne ak manit de léegi kon Omar moo ñeme woon moo am fit ñeneen ñi dañoo def seen tooxi doon a toog Omar moom ñëw wax mbir mi yàlla daal di wàcc aaya bi bu njëkk ba ndeke même bëccëgu weeru koor a guddi yee yem amul jega soxna yàlla daal di koy wàcc aaya bi mu ne kaana fi bidaayati fardi siyaami nekkoon na ci njëlbeenu wooru koor anna man naama bi leyli képp ku tëdd guddi lam yaakul walam yashrab lekkul naanul walam yaqrab imraatahu jegewul soxnaam hatta leyl al aatiya ka anna siyaam yabtadiu min an nawmi la min tuluci l fajri nee na ku def loolu da ngay continuer rek départ mu ngi mel ne koor gi da doon commencé ci guddi gi jëm bëccëg nee na loolu la meloon nee na bi mu defee loolu rek ay nit yu bare bari summa inna unasan ataw nisaahum ñu bari ñëw ci seeni soxna wa axbaru zalika bin nabi ñu ñëw wax yonent bi fa anzala allahu taala hazi l aya al karima yàlla daa di wàcc aaya bi tubiha lahumul aklu walsharbu waljima tuula leyli ila tului fajri yàlla wàcc aaya di leen daganal lekk ak naan ak sëy guddi gi yépp ba fajar jot kenn dootul def loolu nag ku ko def sa koor yàqu na boo ko teyee am nga bakkaar bu rëy ba pare da ngay def itikaaf da ngay def kafaara sunu borom ne bismillahi rahmani rahim uhilla lakum daganal nañ leen laylata siyaami guddik weeru koor arrafathu sëy mooy jaxasoo xam nga yàlla mënoon naa wax ne sëy mais gis nga yàlla dafa junj fii mooy li ñu doon wax sànq yenn saa yi am na àtte yoo xam ne mun nga ko wax te doo toj yax bi mun ngaa junj comme ni koy sunu boroom waxee fii mu ne uhilla lakum daganal nañ leen laylata siyaami guddik weeru koor al layla allati yusbihu al abdu baadaha saiman guddi gi nga xam ne ca suba sa da ngay woor comme instant bii nii bu fekkoon ne suba dañuy woor dimanche guddi gii nii dagan na ñu sëy fi ak sunu soxna ñu lekk ñu naan dagan na mooy laylata siyaami guddik weeru koor arrafasu sëy mooy aljima jaxasoog sa soxna sëy ak moom ila nisaikum ci seeni soxna daga nañ leen guddik weeru koor ngeen sëy ak seeni soxna kon fii lan la fi julli di dégg mooy weeru koor lan la bëccëg yi la guddi gi bokk ci maanaam guddi gi sant ñu la nga woor fii koor gi jeex na depuis timis bi nga dogee su boobaa daganal nañ la liñ la tere woon ci bëccëg yi mooy lekk naan sëy ak sa soxna léegi daganal nañ li ko mu ne hun na ñoom jigéen ñi libaasun lakum ay mbalaan lañ ay yére lañ pour yéen fii tamit yàlla dafa junj lan la junj dafa bëgg nga jaxasoog sa soxna ni ngay jaxasoog sa yére fi mu nekk boo solee yére yére bi jaxasoo na ak sa yaram yére bi nëbb na sa yaram ba kenn gisatul yaram bi kenn gisatu ci dara noonu la bëgg nga mel ak sa soxna beneen bu yàlla ne hunna ñoom jigéen ñi libaasun lakum yére lañ pour yéen yére lan lay jëriñ ci yaram nëbb sutura kon jigéen sutura la pour góor waaye yéen tamit wa antum yéen góor ñi libaasun lahunna yére ngeen pour ñoom kon jigéen ak góor ñoom ñaar ñëpp lan lañ ku nekk yére nga pour sa moroom mooy da nga war a suturaal sa moroom mais yére nag dafa bëri ay façon dafa am yére yi ñuy toggee am yére yi ñuy liggéeyee am yére yu ñuy sangoo am yére yu ñuy fanaanoo am yére yu ñuy toilettoo am yére am yére am yére façon yére yi dañoo bari kon ban façon nga war a nekk ci sa soxna moom ban façon yére la war a nekk ci yow yére yooyu yëpp nag bi ci gën mooy libaasu taqwa zalika xayr yére ragal yàlla yàlla nee na yéen doomu aadama yi man yàlla maa leen wàcceel yére ak dunq waaye yére ragal yàlla moo gën ci yére yi yére bi mun na rafet fekk jaf jëmm ji ak jëf ji dara baaxu ci moo dañu bëgg libaasu taqwa zalika xayr yére ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala nee nañu hunna ñoom jigéen ñi libaasun lakum mbalaan lañ mbalaan xam ngeen mbalaan kinaaya li yàlla da ko dàkkantal anil ixtilaat ci jaxasoo sëy sa yére nu la neex nga def ci bu la neexee nga fanaanoo yére bi bu la neexee nga njaganaayoo ko bu la neexee nga tëdd ci bu la neexee nga sol ko bu la neexee nga fomp ci kinaaya la yàlla indi fii mooy sëy bi la bëgg a wax sa digganteeg sa soxna ah moo tax mu ne soxna si yére la pour yow yow tamit yére nga pour soxna si mooy ni ngay jaxasoog sa yére na nga jaxasoo noonu ak sa soxna ni nga mel ak sa yére melal noonu ak sa jabar ni nga mel ak sa yére melal nii ak sa borom kër yàlla lim ñuy jàngal nag vraiment dañ koo sori dunduñu ko yàlla lim ñuy jàngal dunduñu sax genn wàll gi wa antum yéen góor ñi libaasun yére ngeen la hunna ñeel jigéen ñi allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala mu ne baadukum bi baadin ka ixtilaati sawbu bil badan na ngeen jaxasoo ci seen nekk comme ni ngeen di jaxasoo yére yi xoolal doomu aadama yenn saa yi ni muy fonke yéreem am na yére yoo xam ne bu tilimee sax doo leen dugal ci yeneen yére yi set yi da ngay ut ëmb benn la benn pañe di ci dugal yére yi tilim yi yére yi set yi moom xool da nga koy tegale def ci parfum yenn saa yi nga def ci kamfar pour lan mbóodi bu mu ko laal xool li nga fonk yére am na ñoo xam ne seen yére lañ gën a fonk ak seen soxna am na ñoo jigéen ñoo xam ne seen yére lañ gën a fonk ak seen jëkkër est-ce que dégg ngeen loolu am na yére yoo xam ne sa jabar du ko sol pour yow mukk amoo maanaa ba mu solal la ko Sénégal moom ñoo yor jikko joo xam ne sénégalais yi ñoo yor jikko yoo xam ne saa yoo leen fekkee ñuy toilette waxal foo jëm jigéen ñi saa yoo leen fekk ñuy toilette waxal foo foo jëm doo fekk mukk jigéen ñuy toilette nga ne ko mu la mu ne la ah yow laay xaar du kii yaa ma ko jëndal foog ma toilette pour nga gis ko non non moom kay saa yoo gisee muy toilette pour keneen la waxuma sax toilette mais am na ci ñoom kaas yoo xam ne sax du pour yow pour gaañ yi la ay kaas ak ay kuddu du pour yow de yow kay boo nee bëgg naa naan pour douche bi lañ lay indil dafa la ndox bu ñu amee gan nag yéeg ci ginnaawaati armoire bi wàcce kaas yi ak carafe yi rafet yi ñëw teg xam nga loolu loolu du sëy loolu du sëy loolu moo tax yërmande day manqué mbëggeel gi day manqué mais bu fekkoon ne soxna si saa yoo wàccee gis ko mu toilettu tegal la yi gën a rafet ci kër gi ci bool kuddu lekk bi ndox kon da ngay xam ne vraiment man soxna laa yoran moom tamit kazalika mu fekk ngay toilettu di mais ñun ñun moo tax ñu am problème mu sëy moo tax quelques jours la sëy bi di neex li ci des yëpp ay problème la quelques jours yi mooy lan mooy yàgg ndaw si bi nga ko takkul takk nga ko indi indi nga ko ñaari weer yi xam nga ku nekk day neexal moroomam mais après boo wàccee rek da ngay sol sa puissament ne këcc ci kër gi toog yenn saa sax ñu ne la sangul nga ne sangoon naa démb ah nga bëri wax trop yow yow da nga bëri problème trop sangul démb nga may créel sangu de waaw comme ça moom it bu ko neexee mu yendu ci waañ bi xeeñ ay yéet ak géej ba doyal ñëw tëdd noonu problème problème ñëw na sànq li ñu yàlla doon wax yére yére dafa am importance ci doomu aadama olof yi dañuy wax ne def yaramu neen di wër fu mu yegg si ñu ne ak rafet ñu ne fas la jig wala mbaam wala xaj wala xar ñooñu ñoo dul sol yére fu ñu yegg si ñu ne wuu sëñ bi sa kuy bi rafet na de te sol yére ñu ne doomu aadama bu ko ci toppandooy rek juum na doomu aadama sol yére moo ko jig moo tax foofu ñu ñuy nax tey bu ñuy tànn sénégalaise bi gën a rafet ñuy jàng miis ku sol yére la ñuy tànn wala ku futteeku ku futteeku mënul rafet nit bu solul yére góor ak jigéen a ci yem nag ku weddi si mil say rek nga taxaw ci yàkka ji nga seet ndax di nga rafet ku solul yére mënoo rafet moo tax yàlla mu ne man maa leen wàcceel ay yére pour mu nëbb seen awra loolu la yàlla wax yére pour nëbb awra la yére yi bu nekk nag dafa am place dafa am yére bu ñuy fanaanoo nu mu tudd pyjama dafa am yére bu ñuy fanaanoo kon boobu dafa am dong luñ koy doyee yamale ko ci loolu bu ko yóbbu jàkk est-ce que ñeme nga ko wuyu ji président de la république audience nga bëgg ko yóbbu ci yàlla nga ko yóbbu mu ñeme nga ko ñeme woo ko de président dafa am léegi léegi sax moom affaire dafa xaw a doy waat dañu naan bi fi Ablaye Wade nekkee jamono Ablaye Wade Ablaye Wade daf ñu woowoon audience may ñu audience palais ñu mayee audience ki ñu doon yóbbu boobu mbooloo mi daa bëri motoon na 500 car Njaga Njaay ki ñu doon yóbbu fu nekk la jële ay nit waaye dafa yónni ay nit mu ne dem leen ngeen ne nit ñi dem nañu sol yére yu correct surtout jigéen ñi mu leen ku dangal ku sol tubéy du dugg pale ku paccal ay weenam du dugg pale ku sol lu bon du dugg pale jigéen ñi ne moom dimbali nu kii deex lu ko neex rek ñu dugg ci kaar yi utali pale ñu dem rang gendarme yi nekk buntu pale rang bi day avancé avancé bañ ne kecc kenn mu ne waaw mu ne ci biti génn leew fale fale dégage nga génn keroog daanaka 500 car yi 200 car duggunu ñëpp ñëw tey tey ci giri taxaw di xool ak seen yére yu bon ma xool leen xool ba ci àgg ma ne bu war ngeen gëm yowmal xiyaam tey ñu ne ah ma leen war ngeen gëm yowmal xiyaam yàlla ne sama aljanna ji ku mel nii mooy dugg Abdoulaye Wade ne sama pale bi ku mel nii mooy dugg ngeen ñëw Abdoulaye Wade ne dugg leen yéen ngeen ne di ngeen dugg aljanna yàlla ma ne yéen war ngeen gëm yowmal xiyaam yéen keroog ñu bëri dugguñ loolu misaal la boo xam ne bu fekkee pale bi ku sol yére yi bon du fa dugg jamono Senghor sax nee nañ ma ku tubéyee ma mbuubam nu róowul du fa dugg mu la ne indil jiin nga indil jiin ak sabandoor doo dugg nga costume bàyyi bouton yi fii chemise bi nii ubbee doo dugg jamono Senghor lañ ma waxoon loolu de waxuma laak nag aljanna yàlla tabaraka wa taala fekkee nit ñi ñoo am fulla ba président du recevoir ku su ku correctul ma sama ak yàlla kon yére dafa am place beneen mooy dafa am yére booy liggéeyee est-ce que yére boobu di nga président jël na recevoir audience boobu lan ngeen koy tuddee yére boobu tenue de travail kon ca travail bala yem yóbbu jàkka ja li gën a garaaw nag yàlla ne xuzu zinatakum inda kulli masjid yàlla ne bu ngeen dem jàkk sol leen lu rafet xuzu la wax xuzu ziina ziina lan mooy ziina yàlla mu ne na ngeen taaru peñe leen sikkim yi defar leen mbax na yi xeeñu leen ngeen dem ci yàlla mbokk yi kenn ci ñun fii toog fii boo toogoon léegi sa sa portable sonné ñu ne le président moo la soxla suba 8 heures booy dem nooy demee nañ wax dëgg rek ngir yàlla di nga sang wala doo sang booy bi premier di nga sang wala doo sang waxuma la da ngay sang waaye boo xëyee da ngay da ngay togg ndox xam nga nit ñi dañuy wax yow da ngay togg di nga tàngal bëri ko ndox sangu ba set fu nekk di nga ko ruqati boo amee sikkim di nga peñew ba sonn di nga diw ba sonn di nga parfum di nga tànn ci yére yi waaw yàlla nag dañuy bàyyi xel loolu bu baax a baax suñu bëggee suñu jaamu yàlla yàlla di ko nangu foog ñuy xool ki ñuy jaamu ak niñ koy jaamoo yàlla xuzu la wax kon yàlla mu nañu subhanahu wa taala hunna libaasun lakum jigéen ñi ay yére lañ pour yéen wa antum yéen it libaasun lahum lahunna yéen tamit yére ngeen pour ñoom ci jigéen ñi tamit kazalika jigéen bu fekkee ne chaque jour buy recevoir jëkkëram mu ngi koy recevoir ci melokaan bu doy waar ci ay yére yu doy waar su koy tegal lekk buy fanaanoog moom vraiment jabar jooju jëkkër jooju tamit vraiment du dund lu neex ci jabaram te loolu mooy fi mu nekk nii mooy sunu problème jàpp ne jigéen moom bala muy mën a sañse rek foog muy génn loolu musiba weesuwul loolu yàlla mu ne alima allahu yàlla xam na annakum am na ñoo xam ne ñu ngi annakum yéen ñii kuntum nekk ngeen taxtaanuuna di wor anfusakum seen bopp yàlla nee na xam na moom subhanahu wa taala xam na ne am na ñoo xam ne dañuy wor seen bopp lan la ñuy wor seen bopp mooy woor guddi gi dem jaxasoog seeni jabar parce que Omar moo ko feeñal bi Omar ne yonent bi man de lii laa def rek daanaka jàkk ji dafa riir ah wax dëgg yàlla de man tamit de man tamit man tamit man tamit man tamit yàlla mu ne alima allahu yàlla moom xam na annakum yéen ñii kuntum nekk ngeen taxtaanuna di wor anfusakum seen bopp yàlla subhanahu wa taala xam na ne am na yenn ci yéen munu ñoo tee seen bopp guddi foog ñu séeg seeni soxla li yàlla xamee loolu nag ne am na ñuy war seen bopp du ñu yem ci li leen yàlla sant mu daal leen di daganal ngeen sëy ak soxna yi guddi bàyyi bëccëg bi ci weeru koor mu ne fa taaba baal na jéggal na aleykum ci yéen yàlla baal na leen jéggal na leen wa afa ankum baal na leen ndeysaan fa taaba nangu na tuub ku tuub aleykum ci yéen mu daal di koy nangul tuubam wa afa mu jéggal antum ci yéen ñi defoon loolu tamit yàlla jéggal leen beneen jàngin ci aaya bi mooy dinañ jàng ne sunu borom subhanahu wa taala ku bëri yërmande la wàccewul diine ji pour mbugal jaam ñi munoon naa wax ne weeru koor gi yëpp boo ndogoo continuel koor gi ba xëdd nga xëdd continuel ba timis boo ndogoo continué waata xoolal mais def laa sant nga woor bëccëg bi guddi gi ñu may la nga am liberté lekk ba mu neex la naan jege say soxna jege sa borom kër ah ba fajar gi jotaat nga xëddaat bay bëgg dee ah continue léeg-léeg nga gis benn waay bu xëdd xëdd goo xam ne daanaka bu ndogul sax dana ko dana ko dana ko garde waaw ngir ragal koor kon loolu dañuy jàng ne yomb teefu diine ci encore yàlla bi mu yëgee ne nit ñi mënuñu lii daf ko dindi bu njëkk ba loolu la saaba yi doon def dañuy woor ndogu continuer xëdd continuer ti yàlla daal di koy dindi dindi guddi gi moo tax mu ne uxilla lakum laylata siyaam arrafas fii mu ne alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fa taaba aleykum yàlla xam ne am na ci yéen ñoo xam ne dañ doon trahir seen bopp mënuñu téye seen bopp bu ñu gisee seen soxna yi ni ñu sangoo toilettu diwu xeeñu rek seen yaram tàng ñu séq ak seen soxna yàlla mu ne xam na ne loolu am na ci ñoo xam ne mënuñu ko mu daal leen di teggil guddi gi mu ne léegi léegi nañu sëy ak seen soxna mu ne fal aana léegi ci guddi gi baashiruhunna jonjoo leen ak jigéen ñi taqoo leen ak ñoom fanaanoo leen ak ñoom sëy leen ak ñoom mooy baashiruhunna wabtagu sàkku leen maa kataba allahu lakum li yàlla farataal ci yéen yoonal ko wabtagu maa kataba allahu lakum ay utlubu bil jima alwalad sëy bi ngay sëyeg sa soxna yaa ngi ci wut lu bare bari yaa ngi ci wut bànneex déggal sa bakkan waaye yaa ngi ci wut doom yaa ngi ci wut sangewu bañ a dem ci keneen bañ a mooy yàlla feneen moo tax nga sëy ak sa soxna moo tax mu ne utlubu bil jima al walad ut leen ci sëy yi doom mais est-ce que doom rek bégal sa bakkan est-ce que lool rek waaye mu protéger la ba doo dem di njaaloo ji ci beneen jigéen in kaana qad kataba lakum ndax loolu am jabar di sëyeeg moom yàlla def na ci doom wala yakun aljima li mujarradi shahwa bu kenn sëy rek ngir bànneexu bakkan ngir plaisir sëy ngir tey looloo ñu looloo ñu looloo ñu dal mooy ñu bari ci ñun jabar yu ñuy ut wala bu mu am utu ko lu dul bégal xel bégal bakkanam kese kese kese moom la ci ut fekk jaamu yàlla la woon ibaada waaye ut ci doom la woon ndax dafa bokk ci benn téere bu al imaamu Ghazali al imaamu Ghazali bind na benn téere bu tudd ihya ulumu diin am na ci benn bunt bu mu jagleel sëy soo demee première question bu mu ci def mooy limaza natazawaj lu tax ñuy takk soxna mu tontu question yëpp li tax ñuy takk soxna bokk na ci am doom waaye bokk na ci pour doomu aadama des ci kaw suuf doomu aadama pour mu des fi su fekkoonte ne kenn du takk soxna kon doomu aadama léegi mu jeex dañuy dem ba nit dootu fi amati ci histoire am na jàng ngeen am naa rabu àll yoo xam ne amatuñu wala ku ma ci mën a jox benn comme dinosaures yi amatuñ mais histoire ja existe na ne amoon na ay rab yoo xam ne mais amatu lu tax seen xeet moo jeex doomu aadama bu amul woon jabar dañuy dem ba xeetu doomu aadama jeex ci kaw suuf moo tax yàlla bëgg ñu takk soxna suñu takkee ay soxna ñu am ci ay doom doomu aadama des fi kon sëy loolu da cee bokk waaye bokk na ci doomu aadama day tële da ngay dund ba càgg da ngay tële su boobaa dafa laaj nga am doom ju la jàppale boo ko yónnee mu dem nga toog moom mu lay doxal soxla yi xoolal ki nga xam ne moom dafa ñëw ci benn koñ ne man du ma takk jabar tabax këram ba mu rafet yori lépp léeg-léeg mu am soxla mu taxaw ci balcon bi bëgg booy bu mu yónnee booy suñ ko ne yónnil sa doom fu mu jëm bàccalal sa bopp gis nga ñaata mag ngay gis ñu toog ci kër gi di yónni seen doom yi ah rarement ngay dem bitig ba fekk fa paa wala mère ay ay xale rek la ñuy yónni seen doom yi eh jëndal ma taa yow eh eh jëndal ma yow eh lu tax demuñ parce que am na ñu leen defal yenn yi moo tax dañuy noppalu kon loolu moo tax takk soxna am importance yàlla subhanahu wa taala mu ne wabtaxu sàkku leen maa kataba allahu li yàlla farataal li yàlla def lakum ñeel leen ma kataba lakum li yàlla li leen yàlla defal dencal leen ci sëy yi mu ne baat bi dina ëmb maana aaxar beneen mooy maa ubiixa lakum li leen yàlla daganal li leen yàlla daganal li leen yàlla may ni ngeen ko jël yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg su mayee kenn dara lim ko may na ko jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa min al bir assawmu fi safar bokkul ci teggin ngay tukki di woor bokkul ci teggin ndax yàlla dafa maye kuy tukki bu mu woor bokkul ci teggin kon tamit ngay julli di matal julli lu dul nga nekk ci ginnaaw imaam muy matal da ngay matal bu fekkee yow yaa jiite balaa ngay kàbbar siggil mbooloo mi ne leen damay wàññi julli gi boo sëlmalee ñoom ñu jóg mottali comme ñoom tukki wuñu yàlla daf ñu may fii ñu wóor bëccëg weeru koor guddi gi mu dagal na ñu lekk ñu naan sëy ak sunuy soxna sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa kulu lekk leen washrabu naan leen hatta yatabayyana lakum ba mu leer ci yéen alxaytul abyadu wëñ gu ñuul gi min alxaytil as xaytul abyadu wëñ gu weex gi min alxaytil aswadi ak wëñ gu ñuul gi na ngeen lekk naan léeg-léeg nga gis benn benn waay bu bëgg dund dund dund gu lëndëm noonu la gaa yi doon def de lekk leen naan leen ba ngeen mën a xàmmee wëñ gu ñuul ak wëñ gu weex waa ji jël léegi yow booy booy booy xëdd nga tëj sa néeg yaa ngi ci biir néeg bi nga teg fi wëñ gu weex teg fi wëñ gu ñuul di lekk rek teg sa ginaar bu ginaar bee jeexul mu mburul doo doo doo doo doo doo àddoo kii kañ ngay lekk boobu moytul boo ubbee rek seen jant bi yàlla waxul dafa bëgg fajar gi fajar gi ak guddi gi buy tàqaliko maa jant bi di ñëw day am ñaari ñaari mbir day leeraay ak lëndëm bu ñuy tàqalikoo day am benn rëdd loolu la bëgg a wax mi ngi mel ne jant bi buy dugg fii da ngay seen ceeñeeri as jant bi tegu ci kaw asamaan si lu mu gën a wàcc day dem ba nga gis benn weexaay après weexaay bi rek day ñuul loolu la yàlla bëgg a wax diggante jant bi ak lëndmaay bi fi ñuy tàqalikoo la la yàlla bëgg a wax ngeen lekk naan ba loolu am mooy fajar gi fi ñuy noddee salaatu xadis yu bëri ñëw nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax foofu nu muy mel heure yooyu nga xam ne ci la ñuy noddu salaatu xayru minan nawm loolu la yàlla di ñu junj fii ci aaya bi mooy wa kulu lekk leen ci fajar gi wasrabu naan leen hatta yatabayyana lakum ba mu leer ci yéen alxaytul abyadu fajar gu weex gi min alxaytil aswadi ak fajar gu ñuul gi min alfajri gis nga ci fajar gi bu ñu salaatoo ngi arrêté suma topp après atimmu mottali leen asiyaamu koor gi ilal leyli ba guddi fii aaya bi fii chia yi dañ fee daanu chia yi dañoo daanu fii ci aaya bi chia yi du ñu dog timis soo leen ne lu tax du ngeen dog ñu ne yàlla nee na wa atimu siyaama ilal leyli dañuy lekk ba gée dañuy woor ba gée doog a dog ñu ne guddi la yàlla wax nañ dogu guddi parce que dañu jël aaya bi ni mu ko waxee wa atimu siyaam summa après atimu siyaama mottali leen koor gi ilal leyli ba guddi ñoom ñu ne ñu ne ñu ne kon dañuy lekk ba du ñu woor dañuy woor ba guddi du ñu ndogu bala ñuy ndogu gee jot ñu ne guddi la yàlla wax yàlla waxul timis waaye alxuraan pour ñu xam ne ñoom dañoo juum bañ a déglu ñoom ni ñuy waxee aaya bi di ko firi ak seen xel alxuraan kan moo ko doon firi yonent bi yonent bi moo wax ne guddi mu ngi tàmbalee timis moo tax nga lekk naan nga woor ba timis nga ndogu mi ngi mel ne jàpp du ñu raxas tànk dañ koy masaa te yonent bi mu doon jàpp dafa raxas tànk kon yonent bi moo la gën a dégg alxuraan wala ñoom ñoo ko gën a dégg alxuraan bi mu wooree ba timis dafa dog yonent bi mooy jàngale jaamu yàlla gi nan lañ koy defee nekkul na rek yow noo ko déggee léeg-léeg ci ñun ñu amay problème da nga naan noo mbir mi seen saloo ko sama xel wala yaakaar naa non da nga am problème mbir mi du loolu imaam ali nee na diine bu doon xel tànk bi suñ koy masaa ci kaw la ñuy fomp wala ci suuf ci suuf la ñu war a masaa parce que ci suuf mooy dëgg suuf si waaye xoolal ci kaw tànk bi la ñuy masaa moo tax imaam ali ne diine du xel nga jàng ci lax dari ñu ne da ngay jaar ci mbedd ndox tuuru ci sa kaw nga ne nii gis sa yére tooy ndox la ñu ne demal bul wis bul ci sotti leneen jàppal ne ndox moo këpp sama kaw mu des ngay romb gis ku saw mu ne tër nga ni kii est-ce que sawa mi laalu ma ah foofu da ngay jël ndox suy fi nga yaakaar ne saw yi laal na la foofu lu tax fii nga wis fay wisoo ah fee dangaa jàpp ne ndox rek moo këpp sama kaw ndax dañu ne ndoxam cosaan ndox cosaanam mooy dafa lab fii nag daf laa leer ne ay saw la parce que gis nga waa ji mu ngi taxaw naan cararatatata nga dur nga romb étincelle yi ne tif sa kaw xamoo ndax dal na daloo fu yow loolu mooy sa problème lii moom saw la dal na ma wala daw ma ñu ne wicc ko gis nga islam kon du xel kon loola tax yàlla ne lekk leen naan leen ba timis jot su ma atimu siyaami mottali leen koor gi asiyaamu koor gi ilal leyli ba timis jot mu ne fii nag bu timis xasee jot léegi yow yow dog nga waaye yaa ngi ci vingt-neuvième yaa ngi ci dix-neuvième jour ñaata fan moo la dese woor nga ba am 19 jours ñaata moo la dese ah ñi 9 wala 10 juróom-ñeenti fan moo la dese wala fukki fan léegi yow nga bëgg a def itikaaf lan mooy itikaaf muy nga génn sa kër jël say bagage indi ko ci jàkka ji dootoo dellu kër ga lu dul koor gi jeex léegi nag yow programme nga loolu mooy itikaaf léegi yàlla lim la fay jàngal mooy lii di ñëw mu ne wala tubaashiruhunna bu leen jonjooti ak jigéen ñi bu leen leen jegeeti amul amul amul nekk ci yàkka ji ba midi nga naan wala ba ndogu jot gaa yi ndogu nga naan waa xaaral ma dem kër ga sangu te ñëwaat waay ay waay dama nam ma xale yi nam moo benn xale toogal yaa programme moo ne da ngay itikaaf bul dellu kër ga wala tubaasiruhunna bu leen jonjoo ak soxna yi wa antum yéen aakifuuna yéen a ngi bóof itikaaf mooy bóof lan mooy bóof gis ngeen ginaar ni muy def nenam ah loolu la yàlla bëgg nga def ko ci biir jàkka ji ginaar day tëdd ci nen yi du wàcc mun na fee nekk ñaari fan ñetti fan du génn yàlla nee na boo xasee dugg ci jàkka ji bul génnati wa antum yéen aakifuuna yéen a ngi itikaaf fil masjidi ci jàkka ji da ngeen fa nekk ba fukki fan yi mat bu dee fukki fan la ñuy woor yi des bu dee juróom-ñeenti fan bu gaa yi ne gis nañ weer wi buñ naafilaa ba pare mën ngaa dellu sa kër loolu mooy itikaaf ku def itikaaf doo génn ci jàkka ji lu dul toilette jàppi wala sangu yàlla loolu moo war a génn loolu ah ma leneen amoo ci droit ah di nga lekk buy ndogu di nga ndogu di nga xëdd di nga ndogu di nga xëdd mais bëccëg gi doo lekk parce que da ngaa parce que da ngaa woor abdullahi ibnu abdullahi ibnu abbas la su ma juumulee abdullahi ibnu abbas su ma juumulee dafa def itikaaf ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor dégg leen li ma wax de dafa def itikaaf ci jàkka yonent bi ci weeru koor ñaar tiyaaba la kenn xamul nu mu toll itikaaf ci weeru koor rek tiyaaba la waaye ci jàkk yonent bi encore ati mu dégg benn waay di régler di wax ay problème am ay jafe-jafeem mu ne ko nan dem ma dimbali la kenn ne ko yow xanaa itikaafoo mu ne ko yonent bi nee na nga dox sa aajo mbokk ba mu faju moo gën nga def itikaaf ci sama jàkk ji te man tiyaaba rek laa bëggoon nga dox ci sa aajo mbokk julit problème am ba mu réglé wu moo gën nga def itikaaf ci jàkka yonent bi mu ne man ma doon uttiyaaba ma gis lu gën a foor li ma doon def xam nga ne mos dama ko fi bàyyi dem sama yoon mu ne waa ji jógal ñu dem ma réglé jëkku gis nga ñooñu ndeke lan moo taxoon ñuy jaamu yàlla mooy bëgg tiyaaba du question mu bëri mais ñoom bëgg tiyaaba xoolal ku ñëw ci jàkka yonent bi di itikaaf ba commencé mais mu dégg am na lu gën a foor loolu mu daal di bàyyi li mu doon dem dem defi lu foor loolu mbokk yi sunu borom subhaanahu wa taala mu ne tilka lii ngeen di dégg lii ngeen tiim di ko jàng lii ngeen dégg ñu leen di wax ci seeni nopp hududullahi mooy frontière yàlla ngallawaay ngallawaay fala taqrabuha bu leen ko jege maanaam lii yàlla wax ay atte yi mu leen doon wax sànq ku woor nii la fajar ngay tàmbalee yem timis guddi gi nga laal sa soxna wala nga jege ko bëccëg yi doo lekk doo naan doo sëy lii ngeen dégg ñu leen doon wax tilka lii ñu ne ah mu ne hududullah de mooy frontière yàlla bi mooy santaane yàlla fala taataduha bu leen ko xët bu leen ko jege fala taqrabuha bu leen ko jege waaw lii yàlla santaane li yàlla yoonal bu leen ko def bu leen ko jege di jéem a dof dof lu nag dem fekk fi lu yàlla tere nga dem di ko def di ko jege musiba moo la ciy fekk yàlla mu ne kazalika nii yàlla leerale leen lii yu bayyinu llahu la yàlla di leerale ayaatihi aayeem yi linnaasi ñeel nit ñi laallahum ndax ñoom yattaquuna ñu mën a moytandiku ragal yàlla mbokk yi kama bayyana ahkaamu siyaam yàlla ni mu leeralee attey koor bayyana la leeralee ahkaami saairil ibadat mbooleem jaamu yàlla yi ni yàlla leerale koor la ko leeralee min al afaali ci ay jëf wal aqwaali ak ay wax lu mu mën a doon yàlla leeral na ko gis ngeen tey su jullit ñi nekkee ay taxankatu guddi xam ngeen taxankatu guddi hmm? ku xam luy taxan guddi mooy ku bàyyi ba guddi ci ñun nga jël sa saak dugg ci àll bi ne da ngay ut matt mën ngaa jël lu baree bari de waaye balaa ngay xam ne awma li li ci ëpp li ma doon jël di dugal ci saak bi du matt bët set loolu boobu ngay ramasser di dugal mën ngaa fekk jaan ju tëdd sax julle mu nga defa ne matt la jël ne ko puccax ci biir mën ngaa fekk ay dem àll ba yu wow nga jël dugal ci saag bi mais li nga def ci saag bi yëpp kañ lay leer ci yow bëccëg bëccëg nag mooy nga am xam-xam mooy nga jàng ba bañ a nekk taxankatu guddi diine ji loo jël rek lekk loo jël def gis nga kuy dund lislaam mi ngi mel ni xale buy raam xale buy raam ñu bàyyi ko ci digg ëtt bi muy raam lu mu for fu mu ko jëmee lu mu for lu mu ne nu mu koy def ci gémmiñ gi la ko jëmee léegi nag day laaj am ku jege su foree lu ñuy lekk mu bàyyi mu lekk bu foree leneen ñu ne tapp na ko indi lii kenn du ko lekk noonu la koy dund diine di mel day laaj nga jege borom xam-xam nekkul loo gis nit ñi di def ci mbedd bi rek wala dëkk bi rek dëgg la non déedéet maa ni li ñu tardeel mooy ñoom diw dañuy def ñoom sàmba dañuy def diw day def diw day wax loolu du référence référence baa ngi nii mooy alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yàlla waxul ku ko def da ngaa taxani guddi nattukaay bi diine mooy alquran ak sunna keneen ku mu mën a doon Abdullah ibn Abbas doon wax saxaaba yi yéen di léegi ay xeer këpp seen kaw ma naan leen yàlla nee na yonent nee na ngeen naan ma Aboubacar ak Umar xanaa da ngeen dof yàlla nee na yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar ak Umar kon suñu indee Aboubacar ak Umar teggi leen kon keneen. kon keneen waxi noppi rawatina nag koo xam ne dundul woon ak saxaaba yi dundul woon ak taabiin yi dundul ak taabiaat dundul dundul dundul dundul dundul nga bëgg a jël li mu indi woon bàyyi lu yonent yàlla Muhammad indi looloo gën a garaaw nag ci Sénégal daanaka Sénégal bu fekkee douze millions lañ wala treize millions douze millions yëpp ci mboy mboy lañ nekk ci mboy mboy ci mboy mboy lañ nekk lan mooy mboy mboy mooy nekkuñu ci lislaam bu wér bi yàlla indi woon ak yonentam te loolu nag daanaka kër goo dugg ay kër yu néew ñoo ci mucc ay nit yu néew ñoo ci mucc te loolu musiba la loolu musiba la danger weesuwul nga dem ëllëg yowmal qiyaam yàlla mu ne waa da nga doon jaamu nga ne waaw mu ne li nga doon jaamu kon ma la wax nga def ko nga ne waaw man damaa gisoon nit ñi di ko def yàlla mu ne yónni moo nit ñi de Muhammad laa yónni woon muhammad laa waxoon rasulullah muhammad laa waxoon ne wa ma ataakum rasul wa ma nahaakum anhu muhammad laa waxoon laqad kaana lakum fi rasulillahi muhammad laa waxoon wa man yaasi llaha wa rasulahu muhammad laa waxoon yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqu llah inna allah waaw nga am problème jeex na kon dañu bàyyi xel ci mbir yi góorgóorlu sunu borom ne tilka lii hududullah mooy santaane yàlla mooy atteem mooy yoonam mooy frontière am fala taqrabuha bu leen ko jege kazalika nii yàlla leeralal leen atte koor yubayinu llahu la leen yàlla di leeral ayaatihi yeneen atte yu dul koor julli azaka aj amul lu yàlla leeral lu ah lépp lu leerul ci ñun rek ñun la amul jaamu yàlla booy jël lu dul yàlla leeralal la noo koy defee na kenn wax benn boo xam ne leeraluñu ma leen a ñaan rek wax leen benn bu ñu leeralul benn jaamu yàlla bu ñu leeralul wax leen ko yéen laa déglu benn jaamu yàlla bu ñu leeralul ci islaam wax leen ma ko diina bi jàngal na la ba jàngal la booy dugg ci duus bi nooy duggee booy génn nooy génne ban tànk ngay jiital ban tànk jàkk ji booy dugg ban tànk mooy njëkk dugg ban tànk mooy mujjee génn kon diina ju leeral ba leeral sa yàgg sa soxna ci kawlal nu ngeen di tëddee su ngeen di sëy lu ngeen di def diina ju leeral ba leeral loolu kon diina ju du bàyyi yeneen jaamu yàlla yu màgg yi mbokk yi mu ne wa kazalika naka noonu yubayinu llaahu la yàlla di leeral ayaati aaya yi linnaasi ñeel nit ñi laallahum ndax ñoom yattaquna ñu mun a ragal yàlla gis ngeen aaya yi li tax yàlla di ñu ko jàngal mooy pour ñu mun a ragal yàlla pour ñu mun a xam li yàlla bëgg ñu def li yàlla tere ñu bàyyi mbokk yi ci gàttal li moo doon darsu tey li ci jub ci yàlla la soo amee ay njuumte ci ñun la ñu ngi koy jéggalu sunu borom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh